mbokk ak xarit yi ñuy bàyyi xel fii ci Sunugal 24 nuyu nañ leen di leen ziar tey nekk altina yemook ñetti fan ci weeru avril atum 2023 bisimila ci xabaar yi la ci gën a fës dañu koy dooree ak foofu ci gin gi néew nga xamante ne dafa am ku fa jàmm jabaram ba mu mujjee sax ñàkk bakkanam lu toll ci ñetti téeméer ak juróom fukki saaku sukkar la ñu jàpp foofu ci département bu Mbàkke ndax dafa am ñenn ci ay commerçant yoo xam ne dañ ko doon jaay prix boo xam ne daanaka jaaduwul dafa am feebaru xel moom nag dañ koo fekk mu ñàkk bakkanam foofu ci néegam lu nu mel nag ma nga xewee foofu ci waqinaan nimzaat waaye nag li jaaxal ñëpp mooy dañ ko fekk daal mu pendre boppam kaay bi di Le Regard lañ koy daal di ndax keppe xibaar yi daal di buur ni gis ñu dëkk yéen ci faram fàccee ki Madi Cissé te ay atam tolloo ci juróom fukk ak ñett moom daal la dafa faat ki nga xamante ne moo di soxnaam daanaka ba mu ko jamee daal la mujjee ñàkk bakkanam moom ndaw si di wuyoo ci turu Ajara Dramé mbir ma nag ma nga xewee ci benn village bu nekk ci Guinguinéo bu ñu naan Sare Mbana bu ñu sukkandikoo ci ñi nga xamante ne ñoo ñu jox sax yile xibaar daanaka daal mbir mi daal li tax mu xew mooy dañoo amoon ab xuloo bu ndaw bu doxoon seen diggante ci ñoonu daal la ko jëkkër ji jamee ba mu ñàkk bakkanam gendarmerie bu Fass Bérégo nag mujjee naa naa teg loxo ki nga xamante ne moo def euh, bile ñaawteef Ajara Dramé mi nga xamante ne nag moo ñàkk bakkanam koram mu ngi ñëw foofu ñu yóbbu ci hôpital régional bu Kaolack di hôpital El Hadji Ibrahima Niass lu toll ci ñetti téeméer ak juróom-ñetti fukk saaku suukar la élément yu chef service départemental yu Mbàkke jàpp ñoom nag li waral ni mel nag mooy dañu respecté wul prix yi nga xamante ne nguur gi joxe woon na ko ba tax euh, ñu teg leen loxo ndax daanaka ñenn ci cinquante kilogrammes mooy trente trente et un mille francs CFA jàpp trente six mille francs te prix yi nga xamante ne nguur gi joxe woon na ko tollu ci euh, vingt huit mille jàpp vingt huit mille cinq cent am na sax ay charretiers yoo xam ne nemmeeku nañ ne saako suukar yi nga xamante ne ñu ngi koy yóbbu du am benn yoon facture loolu waral daal euh, ñi nga xamante ne ñoo di chef de service départemental bu commerce foofu ca Mbàkke teg nañu ñenn ci ñooñu loxo te di wax daal ne ñi nga xam ne ñoo def boobile ñaawteef dinañ leen amande dafa am feebaru xel dañ ko fekk daal mu ñàkk bakkanam ci biir néegam mbir mi nag ma nga xewee foofu ca Angle Moussa ci waxinaan Nimzaat ba léegi nag xamuñ li tax mu daal di ñàkk bakkanam moom nag kora mujjee nañ ko yóbbu foofu ci opital dalal jàmm ngir def autopsie ngir xam daal lan moo waral mbir mi ci fàttali rekk nag moom mi nga xamante ne moo ñàkk bakkanam daanaka ba yaayam génnee àdduna ba léegi dafa am feebaru xel am na sax ay traitement yi psychiatrique bu Thiaroye jëwriñ bi ñu dénk wàllum napp demoon na démb foofu ca Thiès ngir seete ñi nga xamante ne ñoo amoon ay gaañu gaañu ginnaaw xeex bi amoon ci diggante nappkat yu nekk ca Kayaar ak Mboore ba am nag ñaar ñi nga xamante ne am nañ ci ay gaañu gaañu yu métti kenn ki sax ma nga nekk foofu ca réanimation bu ñu sukkandikoo ci ministre bi nag daanaka nappkat yi nga xamante ne ñoo nekk foofu ca mbooro ñoo attaqué ñoo nekk ca Kayaar ci ay seen embarcation yu nga xamante ne dañ yàq ak yenn ci ay filets yu ñu taal ñoom nag euh, daanaka Mor Meng nag mi ngi nekk coordinateur bu comité local bu pêche artisanal ginnaaw loolu nag maire bu Kayar di Alioune Ndoye di xamle ne daal fanweeri nit jëlee nañ ca ay gaañu gaañu ñoom ñëpp nag ay nappkat lañ gannaaw xeex bi nga xamante ne doxoon na diggante ci ñaari nappkat yi di waa kayaar ak waa Mboro autorité nag ñu nga ciy dox ay tànku jàmm ngir lépp mën a nekkaat si jàmm ak salaam coordination yu étudiants yi nekk foofu ca Saint-Louis ñoom nag dakkaloon nañu seen activité pédagogique yi nga xamante ne dañ ko dakkaloon ginaaw ba ñu jàppee kenn ci étudiant en droit yi di wuyoo ci du Doudou Leye moom nag dañ ko jàppoon ci manifestation yi nga xamante ne amoon na fi le 16 mars bi ñu dëgmal bi nga xamante ne yeewi askan wi ñoo ko daal di amaloon bu ñu sukkandikoo ca ñoom nag daanaka seen boobule naataango mujjee nañ ko bàyyi ba tax ñu dakkal lépp loo xamante ne jàppoon nañu ko ñu dénk wàllum recherche scientifique ci ki nga xamante ne moo di Abdou Diouf di wuyoo ci turu Balla Moussa Daffé moom nag mi ngi ñaawlu ak sax rafetlu nee na benn yoon tension politique bi nga xamante ne nemmeeku nañ ko jamono ji ci réew mi moom nag ma ngay fàttali daal li nga xamante ne ñoo di acteur politique yi moo xam ku nekk ci kujje gi ak ci nguur gi ñu toog waxtaanaat ndax daal ñoom bañ fi nekkee woon daal nemmeeku nañ ne ñaawtee fii daal dootu daan am dinañ sax dinañ am sax ñoo xamante ne bokkuñ sax gis-gis waaye daal lépp da daan nekk ci jàmm moom daal ma ngay wawaat bu baax ñi nga xam te ñoo di acteur politique yi ñu waxtaan nag ndax jàmm ji nekk Sénégal mën a dellu siwaat Idrissa Idrissa Seck di njiital grand parti ci ab réunion bu ñu doon amal ñoom secrétariat national bu réew mi porndoolu na ci daal ngir indi ay leeral ci mbir mi nga ñenn ci ñi ngi ne ci ñenn ñi naan moom daal dafa ne nii daal kenn xamul opposition moom nag mu ngi fàttali rek ne moom ku ko xam-xam ne ne daal amul lenn lu mu ragal te lépp lu mu bëgg a daal dana koy daal di def dikkaat na sax ci mbiru troisième mandat bi nga xamante ne moom la Macky Sall def moom daal waxoon ca lay waxaat ba léegi am ñaari mandat rek war ngaa dem ndax mi ngi fàttali rek ne daanaka ku ne xam na ne li nga xamante ne diggante bi doxoon ci digganteem ak ki nga xam ne moo di uh, Abdoulaye Wade waaye mbirum troisième mandat boobu daal moo tax ñoom ñaar seen diggante xaw a ma ngay fàttali rek même ki nga xamante ne sax moo di njiitu réew mi Macky Sall bu amee ñaari mandat rek dafa war a daal di able yéenekaay bi di Le Regard lañ koy daal di ndax keppee moom mi xëy fësal ci naataalam bu njëkk Yewwi Askan Wi nga xamante ne dafa ne daal du dem wuju ci invitation bi nga xamante ne uh, président Macky Sall def na ko bopp ngir ñu ñëw foofu ci 4 avril bi nga xamante ne du feetu indépendance su Sénégal bi ñu war a amal suba Mimi Touré déclare Mimi décline l'invitation de Macky Sall et réclame la restitution de son mandat de député moom daal nee na moom itam du dem waaye tam nañ ko delloowaat ndombal tànk député bi nga xamante ne amoon na ko comme niñ ko doon waxee léegi ci xabaar yi affrontement yi nga xamante ne amoon na ci napp nappkat yu nekk foofu ca Kayaar ak euh, foofu ca Mboro ba am sax ñenn ñu ci am ay gaañu gaañu Ndiaye drapeau ki nga xamante ne daal monde sportif bi am na dëj bu baax ndax supporter bu mag moo génn àdduna fi nga xamante ne moo moo génn àdduna euh, démb Abdou Karim Fofana ci page 4 bu yéenekaay bii di le regard moom daal ma ngay wax ne daal on ne peut pas imposer à une personne ce la constitution ne lui impose pas moom daal nee na mënuñu forcer benn nit koo xamante ne daal lenn loo xamante ne li nga xamante ne moo di constitution bi opposé ko mbirum troisième mandat bi daal baax ci teewlu bi di jaajëfal également Dowa mi nga xamante ne moo nekkoon ci xarala gi di leen dig daje suba incha allah ci seen yeneen jotaayu xibaar jërë ngeen jëf.